mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu nuyoo a gën a màgg di am mbégte dellusiwaat ak yéen fii ci Touba Daarul Minnan ci jotaay yi nu baaxoo amal ci weeru koor wu nekk ci njiital ak kilifteefu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke xafisawallah waraa ci taxawaayu sëriñ Mouhamadou Abdoulahi Mbacke al imam ak ci njiital sëriñ Cheikh Khadim Mbacké Cheikh Mouhamadul Mountakha feggoo ak sëriñ Mountakha Mamour Pakala ak mboole mbokk yi ñu bokkal séq ak ñoom liggéey bi nga xam ni mooy liggéey bu màgg bi akademiyatu minanil ba xadim lil ulumi islamiya di ko amal ci taxawu xam-xam ak yaatal ko. jitaayu ren yi nag niñ ko waxee woon ci jitaay bu njëkk ba rek mu wuute ak yi daan am ci aw doxalin ngir tawat ji nga xam ni moo xew ci jamono ba tax lu baree bari soppiku ci ndaje yi ba tax ñuy am suñu conférencier kiy waxtaan ñu jox ko tomb bi mu gaaral ko su ko defee ñu fexe ba mu jàll ci mboolem tasukaayu xibaar yi ci rajo yi télé yi ak web tv yi tey nag ñu tànn tomb bu xam ni bu am solo la muy fiqul ibtilaa'i fil islaam namadijun min mawaqifil xiyaadatil muridiya muy maanaam nattu yi ci lislaam waaye ñu indi ci model ci taxawaayu yenn ci kilifay murit yi ak yoonu murit ñu namm cee ànd ak gëstukat boroom xam-xam sëriñ Abo Kebe di ku nu miiñ ci waxtaan ci wàllu diine ak waxtaan ak nit ñi ci lu leen di jariñ ci àdduna muy gëstukat di bindkat di conférencier boo xam ni mi ngi yaatal ay waxtaanam ci biir réew mi ak bitim réew sëñ Abo bismillah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ixwat alimaani wal iraada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bu ñu nuyoo bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñi ngi ziyaar sunu sang bu tedd bi eh, cheikh muntaqa xafizahu llah wa raa di ziyaare mbooleem mbokki académie minal baaxil xadim e, di ziar mbooleem julli di ànd ñun jataay bi di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd wi ñu nekk muy shahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqan e, tey nag ñu ànd ak yéen ci jataay boo xamee ne jamono laaj na ko ndax nekk nañ ci jamonoy jafe-jafe jamonoy xat-xat muy al ibtila ab mbas am na nattu am na lislaam nag dañuy jàngal yàlla bëgg na lu xew jullit bi am taxawaay bu mu ci taxawee bu jafe-jafe amee am na taxawaay bu ñu ci war a taxawee ci dellu ci yàlla ci xam euh, li yàlla bëgg ci moom mu delluwaat tuubal ko dellu ci ay ndigalam ndax yàlla yërëm ko bu xéewal amee it yàlla li muy sàkk ci jaam bi mooy mu sant boroomam xéewal gi mu def ko ci li neex yàlla kon xew-xew am na muy al al ibtilaa xew-xew boobu lan mooy fiq biñ ci war a taxawe lan la ci jullit bi war a taxawe Euh, ku ne xam ne ne yàlla indi ñu ci kaw suuf ngir ñuy noppalu wala ngir ñuy nelaw yàlla wax na ci alquran afa xasibtum annama xalaqnaakum abatha wa annakum ilayna la turjaun fa taala allahu almaliku alxaqu ila axirihi nee na baadu da ngeen a foog ne dama bi ma leen di bind ay caaxaan tax caaxaan taxut kon am na mm, yitte am na solo am na tax-tax bu tax mu indi ñu fi waxaat na ne wa maa xalaqna samawati wal ard wal arda wa ma baynahuma laa'ibiin bi ñuy bind asamaan ak suuf foo taxutoon maa xalaqnahuma illa bil xaq dëgg rek a tax ma bind leen kon li tax waxaat na ne bi ñuy bind dund bind dee di indi nit ci kaw suuf lenn rekk a tax mooy teste ko mooy natt ko kon nattu xool ndax ni ñu ni mu bëggee ñu dunde ko danañ ko def ñu def ko ni mu bëggut ñu sori ko nee na tabaraka alladi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakumu ayukumu axsanu xamala yàlla dañu fi indi bind bindal ñu dund bindal ñu dee may ñu ajalan musamma ñu dund fi as diir ngir mu natt ñu xool kan moo ciy gën a def li tax mu ma bind la kan moo may gën a jaamu kan mooy gën a tegu ci siraatal mustaqim kan mooy jaar ci yoon wi ma ko tegal wax ne inna jaalna ma ala ardi zinatan laha li nabluhumu ayuhumu ahsanu amala nee na suuf si bi ma koy bind def ci xéewal yi ci nekk yépp taar beeg li ci nekk lépp ngir indi leen fi ngir nattu leen doo nga tax kon nattu dafa bokk ci li tax yàlla indi ñu faw sunu dund di am ay nattu ay jafe-jafe yii boo nit kuy dund war koo sóobaale te xam ne daa bokk ci dund gi nattu nag ay façon yu bari la am yàlla wax na ne danaa leen nattu bi charri wal xayri fitnatan wala nabluunakum bi charri wal xayri fitnatan kon mën naa doon natt bu neex natt it mën naa doon nag natt bu naqari yàlla dogal nag nit saasu ko yàlla nattoo ci xéewal ak yu neex day baw fàtte boroomam euh, euh, jàddu yoon kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghna loolu mu ngi ci sóoratul alaq yàlla nee na waat na nit saa su ma ko defalee xéewal mu beew fàtte boromam bu ko defee kon xéewal ci nattu yi la jàmm ci nattu yi la am li nga bëgg ci nattu yi la waaye kii xam ne nattu la mooy ki koy jëlaat dellawaat ko yàlla waaye li ëpp ci mbindeef yi bu leen yàlla nattawoo xéewal googu dañuy fàtte seen borom bew eh, di def loo xamee ne day yàq suuf si di yàq environnement bi di yàq jikko yi di yàq mbaax moo tax yàlla wax ci alquran ne zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasaba taydi nnaas li yudiqahum baada alladi amilu laallahum yarjiun eh, bu ma jaam yi xéewal yi ma leen defal tax na euh, ñu bew bay yàq suuf si te ku ne xam ne ne loolu lu ñuy jàkkaarloo la ci foo xool euh, liñ yàqee jikko yi ni ñuy yàqee euh, doxeyinu diggante nit ak moroomam diggante nit ak boroomam waaye ni ñuy yàqee suñ environnement bi ak suñ dundin wi kon yàq fees na biir géej yàq fees na jéeri te lépp nit ko def bi bi kasabat ay naas bu ko defee nag li yudiqahum baada alladi amilu faww kon yàlla conséquence su seeni jëf li ñu def ci lu bon faww yàlla wan leen ko ñu mos yàlla yit baaxoo na buñ nattu ay soppeem ci lu naqari la leen di baaxoo nattoo wax na ci alquran ne alif laam miim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna amanna wa hum laa yaftanuun nee na baadu nit ñi dañoo foog ne nit ñu baax ñi da wax rek gëm naa ma bàyyi leen duma leen nattu duma leen teg ay coona waaye déedéet yàlla da leen di nattu ngir fa la yalaman allahu alladina amanu wala yalaman al euh, kafirin dana leen nattu ba xam ñan ñoo ci dëggal ak ñan ñoo ci gëmut wala ñan ñoo ci ay naafeq euh, jaam bi it baaxoo na fuñ ko yàlla nattoo ci ay jafe-jafe ak i mettit day toroxlu day delluwaat day yërëmtaluwaat moo tax saa su nit ñi bewee ba yàq suuf si ba yàq jikko yi yàq diine yi yàlla baaxoo na leen nattu ci nattu yu tar yu ñuy gis mën naa doon nattu ci seen bàkkan mën naa doon nattu ci seen alal mën naa doon natt ci seenu dund mën naa natt ni ko yàlla waxee ci alquran ci suratul baqara ba àggale ko ci ne eh, wa bashir sabirin allazina ida asaabathum musiba qalu inna lillahi eh, ci ci bakkan wa naqsin min al amwal wal wa thamarat wa bashir sabirin yàlla nag noonu la jëlee tamit nattu def ko mu doon euh, raas bi ay soppem di yéege ngir am daraja ya gën a kawe ku ku la ëpp ab cër ci yàlla ku la ëpp wàccuwaay ci boroomam moo lay ëpp nattu sëñ Moussa Ka ku dellu ci ay euh, euh, nattoo di karkaraani law liyaay gis nga ni mu ñu nattugaay yu baax yi ku ci ne fa nga jaar ak la nga daj ba am la nga am kon nattu dafa bokk ci e, tabiatul xayaat ni yàlla dafa bokk ci sunanil kawniya dafa bokk ci sunanul xayaat li yàlla bind luwaa naturel yiy doxal adduna neex da caa bokk naqari da caa bokk e, ndax yàlla moo bëgg nit ñi fu ñu fàttee mu fàttali leen fu ñu sonnee mu xettali leen kon yooyu da ciy mënta ñàkk jàmbi xam ko xam nag waxtu ci ne lu ñëw nan la war a jëflanteeg moom ba mën cee am ngërëmul boromam noonu gis nañ yonent fi jaar yépp ci ay nattu lañ dund ba yàlla teg leen bokk na ci jafe-jafe yii ñuy dund jamono jii ci mbas mi gis nañ ci yonenti yàlla yi ku ci ne yàlla dana ci jël ab misaal ñu jàng ci yow waaye lu mel ne nattu ay tawat aki i ak i jafe-jafe sayduna ayub yaakaar naa ne misaal dëgg ci mën a muñ ci xam fiqhul ibtilaa jaam bi bu ko yàlla nattoo nan la war a def sayduna ayub euh, namuusaj la ci model la ci moo tax yàlla di ko tagg ci alxuraan naan ko ni'mal abdu euh, muy muy muy Seydina Ayyub yonent yi ci des yëpp ku ci ne bu delloo ci seen dundu dañ ci gis ay jafe-jafe yuñ jànkoonteel ci seenu dund waaye muñ ko euh, delloo seen bopp seen boroom euh, xam nañ ca war a taxawee ba yàlla nattu leen kon ba yàlla tegg leen ko kon loolu jullit bu ne war na koo jël en tant que model war na koo jël def ko royuwaay ci jafe-jafe yu toll yi ñu toll nii xam ne gënut lu mu baax baax lu mu sell sell munta gën yonent yooyu te yonent yooyu li ñu daj kenn ci jamono ji dajoo sax lu toll benn euh, euh, ab ab un un tiers wala ab ab ab toq ci seen natt yooyee gis nañ it ne sunnatullahi fil ibtilaa day wëy gannaaw yonent yi saxaaba yi gis nañ ku ci ne ci sa dund am na natt bu la yàlla natt woon nga muñ ko taxaw taxawaay bu rafet bu ab jullit war a taxawee ci jafe-jafe yu mel noonu gis nañ ay xeex ay jàmmaarloo am dañ seen biir gis nañ euh, euh, euh, lu mel ne ay mbas mu mel ne mii ñuy dund jamono ji wala mu ko gën a tar mopp fopp ñi euh, amoon na ci seen jamono rey ca lu baree bari te li ci gën a yéeme am na ci mbas mu amoon ca saam xarab jullit ba la fekk rey ca nee nañ lañ ca rey ëpp na euh, juróom fukki junni nit faatu nañ ca te booba da ngay jàmmaarloog yéefar yi waa ruum euh, ñoom yàlla teg leen ñoom ñëpp nattu bi yéefar ya moom seeni néew sax daawuñu leen suul jullit yi dañ daan jël ku ci dee ci ñoom danañ dañ la suul toppatoo la na nga ware ba wax nañ ne la ca dee ci jullit ak gaa yu baax mat na juróom fukki junni ci mbas moom gis nañ saxaaba yu baree bari ñoo xamee ne ci ñi gën a kawe ci lislaam lañ ci mbas moomee lañ noppaloo bokk na ci abu ubayda ku ne xam ne wàccuwaayam bokk na ci Muaz ibnu Jabal ku ne xam ne wàccuwaayam ci lislaam ak doomam Abdurahman ak Fadl ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ak ñeneen ñu baree bari wax nañ Anas ibnu Malik doon xaadimu rasul daan liggéeyalkal yonent bi aleyhi salaatu ay doomam yu baree baree bari ci mbas moomee la leen ñàkke mu mel ne kon euh, euh, bu fekkoon ne mbaax ak jege yàlla dana tax nit mën a mucc ci jafe-jafe yooyu kon saxaaba yi ak yonent yi euh, du leen dal waaye loolu mooy sunnatullahi fil ardi nii la ko yàlla bëggee mënuñu lu dul nangu ko euh, doyloo yàlla nangu ay ay ay lim ñu teg fexe xam euh, bu ñu juumee sabab ba tax yàlla teg ñu natt bi ñu jéem cee dellu gannaaw gis nañ tamit ci xayaatu salafil umma asalafu saalix niñ daan jàmmaarloo ak jafe yu mel nii ak natt yu mel nii gis nañ euh, ci euh, ku mel ne ibnu xajar al asqalaani na xam ne ci xadis ci kilifa yi gën a mag la taalif na ab téere tudde ko euh, bazlul maawun fi fadli taaun ndax nee nañ li tax mu taalif téere boobu benn mbas mu amoon doomam yëpp daanaka ci lañ faatoo waaye jàppewu ko ab musiba jàppewu ko aw ay waaye dafa delluwaat ci yàlla xool li yàlla wax ci alquran ak ci sunna ci mbas tax mu génneel jullit yi dajale leen ci wax yàlla ak yonenteem loo xamee ne dinañ ci mën a jànge ci mbas tudde ko sax ngëneelul mbas kon jullit yi noonu lañ jàppe woon jafe-jafe seen taxawaay ci wàccuwaay yu mel nii ak jafe-jafe yu mel nii bu masaan am mooy delloo bopp delloo seen bopp seen borom xam ne yàlla moo leen bind te bi leen di bind ngir nattu leen moo tax mu indi leen fi xam ne ñëwuñ ci kaw suuf ngir nelaw wala ngir fo wala ngir caaxaan waaye dañ fee ñëw ngir si biir ay épreuve dund ay jafe-jafe ak i coono ak dund lu naqari ba surmonté ko ku jàll am nga ngërmul yàlla ku jàllut xam ne yaa wàccandiku loolu buñ delloo ci sunuy magi lislaam sunuy mag yi tasawuf sëriñ Tuubaa misaal dundam gépp ay nattu la moom waxal na boppam ne na maa ngi leen di yee ci ne toog naa lum ëpp ñeen fukki at maa ngi nekk ci diggante sukuraatu sukuraatu dee ak lu lu mettee ne sukuraatu dee ak lu mettee ne da daxtatul xabri mooy tàppeeg bàmmeel najug bàmmeel ci mettit bu ma génnee ci bii ñu dugal ma ca ba ca des lu mat ñeent fukki gis nañ ne kon bi mu sóoboo ci yàlla yàlla boole ko ki noon ñu koy mettital di ko teg ay coona dundam gépp daanaka ci la nekk ba bi muy génn àdduna ba ci fukki at ak juróom yu mujjim ci njaareem la toog te mi ngi ci loxoy ab noonam kon moomu dara ci boppam yàlla moom léppam waaye dundam gépp tamit ci coono la bu doon kenn mën na mucc ci ay coono moom dëgg dëgg mi jox yàlla léppam war na cee mën a mucc waaye tax teewut nee na xusuuri xalat wala ahlu an ni tafarraqat li madi alladi anhul madihu qasiru sama dund gépp eh, eh, jox naa ko yàlla ak liggéeyal yonente bi alayhi salatu wasalaam tax Euh, euh, noonu yàlla yi noonoo ma ba génne ma sama kër tas sama euh, sa samay kër tas sama njaboot waaye yàlla jaral na ma ko kon bu kenn doon mën a mucc ci ay nattu Sëriñ Tuubaa moom mën cee mucc waaye gis nañ ne dundam gépp mawqif al muslim min al ibtilaa fiqhul ibtilaa moom moo ko xam mooy xam na ne boroomam moo ko teg lii ngir yéege ko mu nangu ko delloo boppam boroomam taxoon na mu daan wax naan yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manaata fa ridan wa sabru wax wax ba ne is laa yajiu min karimin dayru loo ma teg nangu naa ndax xam naa ne bi nga tuddee karim baax te yaa te kuy baax yaa yaa ko gën loo ma teg rek xam naa ne baax la donte métti na bu ma ko xamul tamit xam naa ne mooy li gën kon sëriñ bi dafa nekkoon na muusaj fi taslimi wa rida wa sukun taxta taxta alqada dafa jëloon boppam li ab julit war a taxawee ci mbas bu amee mu delloo boroomam wala bu jafe-jafe amee mu mu delloo boppam boroomam xam ne yàlla moo ko sañ a teg coono bi mu nangu ko te fa ko yàlla jaarloo mu jaar fa fa ko yàlla loo mu yam fa loolu misaal la ci jàpp naa ne jullit bu ne war naa jàng ci ak dundam ni mu war a jàng ci dunduk saxaaba yi ni mu war a jàng ci dunduk euh, euh, euh, yonent yi fi jiitu woon gis nañ sëriñ Touba ci dond gi mu dond yoonu saa salaam sax xaadimu rasul gi mu doon yàlla ba muy nattu xaadimu rasul ma jiitu woon muy Anas ibnu Maalik gis nañ wax nañ fi léegi ne ci mbas moomee ay doomam yu baree bari e, dem na faatu nañ ci waaye dafa mel ne niroo gi tax na ci jamono sëriñ Touba yit yàlla indiloon nañ ñu am mbas mu fi amoon gis nañ taxawaayu bi ci sëriñ bi taxaw woon ci delloo li ci gën a yéeme mooy ni mu delloo nit ñi ci yàlla ndax Euh, jamono ju ne am na ci jaami yàlla yi koo xamee ne bu ñaanee ak ñaanam buy wàcc yàlla teg euh, yàlla nangu ñaan nga te jamono jooju mooy Sëriñ Tuubaa mooy jëmm ji jëmmal loolu ci jamonoom waaye gis nañ ne bi xew-xew boobu amee wax nañ ne ku ne ñëw na ci moom di sàkku mu ñaan ci waaye nangu caa ñaan daa neeñ sax wax na ne da ngeen a jàpp ne soppe bi yàlla mooy lu la neex neex yàlla waaye soppe bi yàlla dëgg-dëgg mooy lu neex yàlla neex la koy mooy nangul yàlla kon ñoom xam gi xam yàlla xam ne lii bu ko yàlla dee def xikmaa tax jàngal mbindeef yi tegal leen ci aw yoon moo tax moo tax lu lu lu am rek neex na ko waaye gis nañ wàccuwaayu jullit bi mu ci waa tamit ba mu demee ba situation bi laaj ñaan kon dégg nañ sëñ Mbay Jaxate xasida gam ca def ñëw jàngal ko ko ba mu jàngee ba àggal wax nañ ne sëriñ bi euh, am na xasi bayit wu ci suuf araani alxakimu fi balaaya aafiyatan nimal ali mawlaaya boobee yàlla dafa tegg coono yépp kon ci taxawaayu sëriñ bi ci mbas mi fi amoon euh, gis nañ mën nañ cee jànge lu bare bari mooy euh, li docteur yi wax ak ni état bi amee woon tubaab yi fi nekkoon jamono jooju ñëw di nosee lañ lañ doon def yàqalu leen ci dara da leen a bàyyi rek euh, gis nañ tamit kon loolu lu luy war a jàng la mooy yu mel nii boo amee jàppalante ci mun cee ñàkk gis nañ tamit euh, ni ci ab jullit war a taxawee ci delloo ci boppam yàlla ak euh, xam fiqhul ibtilaa bi taxawaay boobit fan yi dégg naa sëñ xaarim si la di ko nettali wax ci lu rëy lum ci wax lu jar a jàng mooy bi ñu ñëwee di ko ko ñaanloo dafa ne dama leen ne tànnal lu gën ndax bu fekkoon ne dama dafa ñëw rek ma ñaan ca mu teggi ko dañ may def yàlla gis ngeen kon ni mu bëggee jàngale tawxiid ni mu bëggee delloo nit ñi ci yàlla ñu am tawxiid loolu feeñ na lool ci taxawaayam waaye gis nañ tamit ba mbas ma ëppee ba nara faagaagal ba sëñ bay jaxate wax ne jugal nag ci mbes mi waxal nag ci mbes mi sa ñaa ngi dee te ab sàmm bu ila axir yi na ma ko waxe kon ba mu ca ñaanee yàlla teggi lépp gis nañ tamit nag taxawaay boobu dafa mel ne sunu kilifa yi Cheikh Mountakha hafizahullah wara dafa mel ne taxawaay boobu fiq ni sëriñ bi doxe woon niru na ko xeeñtu na ko roy na ko ci taxawaay bu mel ne bii amaat ci jamono jii ndax gis nañ bii mbir mi amee ba léegi eh, delloo nit ñi ci yàlla la njëkke gis nañ ci njëkk xew-xew bi ci ay mars yooyu tasanteeg màggalu poroxaan gi yaakaar naa trois la woon eh, fekk dugagut ci réew mi waaye ci responsabilité ak yëg gi mu yëg masuliyatu ëmb ak yiir jullit yëpp ak yiir ummatul islam bépp ñaan yam ca taxawoo ak lam ca gàddu ci digganteem ak boroomam ak ñaan yam ca digle te loolu ku ne gis nañ ne ñaan googu moom lu jara sant suñu borom la ndax Sénégal ni mu ñàkkee ay moyens Sénégal ni mu Afrique gépp sax laay wax luy faagaagal réewi tubaab yi di leen ray te ànd ak moyens yi ñu am yëpp ma ngi leen di faagaagal te suñ réew mi ba mu fi duggee ba léegi lim bi ñuy wax de ñun dañoo war a sant yàlla bu baax a baax lim biñ naan moom la dal ak liñ lim biñ naan ñoo ca eh, ñoo ci ñoo ci faatoo dëgg dëgg kenn na xam ne nag bu doon ay moyens zahir dong jàpp naa ne tubaab yi mën nañoo gën a mën a mucc kon. kon ak cant yàlla dëgg-dëgg yaakaar nañ ne ci taxawaayu sëñ bi ak taxawaay nit ñu baax ñi ñaan yi ñu ci ñaan. yaakaar naa tax na yàlla ah woyofal na ko loo woyofal nañu ko lool lool lu jar a sant yàlla waaye yëmu ci gis nañ joxe ni ay ndigal ci lépp luy fang pang euh, mbas mi ci zahir wala ci baate ñu taxaw ci ci ñaan waaye ci euh, respecté topp ndigal yi ci ahlu zikri mooy docteur yi li ci wax nañ nañ nañ ko jofe gis nañ euh, lii ni mu xew-xew yi fi daan am ci diine ay màggal gis nañ naka su rajab ga waroon na ci am màggal daaru moxti ak màggal yu baree bari yoo xamee ne ci jamono jii la waroon am te ku ne xam ne ab murit ni mu fonke ab sëriñam ziyaar ko fàttaliku ko njàngal ko ñaanal ko boobu waxtoom jotee dajaloo gañ ci daan dajaloo waaye sëriñ bi ngir bëgg xam responsabilité ak bëgg jullit yëpp mucc bëgg ñëpp am liñ jàmm tax na mu ñaan ñu defe ko na neneen defe ko woo xamee ne lañ ca daan def cay ñaan ak dellu ca yàlla lépp ñu koy def waaye dajaloo gi nga xamee ne mën naa am lu ca lu ca lu ca juddoo mu ñaan ñu soppi defeen woowa ca defe ko defeen wu gën a rafet loolu kenn foogutoon ne lu war a mën a am la waaye ci pës ci dogoom ak yéene nit ñi jàmm nit ñi xamal tamit ne lim ñu yéene mooy suñu jàmm mooy suñu njariñ ñu fekk si ko ci kon beneen bi it mooy mbooleem kilifa yoon wi nga xam ne du moom rek waaye ñi mu yilif ñëpp it seeni taxawaay ci euh, mbir mi dafa dafa yéeme lool ndax bim sàkkoo ci ñoom loolu ñoom ñëpp wuyu ko ci ànd ak moom ca loola jàppale ko ci loolu tamit kon xiyaadal muridi yëpp ware nañ exemple bu baax a baax a baax ci yërëm euh, umma bi yërëm jaam yi ci euh, def lépp luy tax mbas mi ñu mucc ci waaye gis nañ euh, sëriñ bi ci discours yi mu mujj a def delloowaat na nit ñi ci yàlla bu wér a wér ak tawxiid te loolu yaakaar naa mooy li sëñ Tuubaa defoon ci li sëñ Xaadim si la nettali woon dégg nañ ci discours bii mu mujj def ci bi ñuy waajal koor nu mu delloo nit ñu ci tawxiid wax ju gàtt la waaye wax jooju tënk na lépp mooy fiqhul ibtilaa yàlla moo ñu nattu moo ñu ko teg keneen mënu koo dindi nañ delloo nañ ko delloo suñu bopp loolu ab darsu bu ama ama am solo la ci bu mu taxawee foofu gis nañ it ci discours boobu discours yooyu lum ñuy digal ci nu ñu war a respecter li docteur yi digle nañ fonk tadaabir saxiya yi euh, sore soreyantoo gi war a am euh, jëf moom sax ci jëmmi boppam gis nañ ko mu dugg ci jumaa ji raxas ay loxoom ci gel yi ñu fay teg loolu misaal la bëgg joxe ñëpp topp ko ci waaye yëmu ci loolu gis nañ tamit nu mu nosee jàkka yi ak jumaa yi te loolu dëgg-dëgg wane na fiqul euh, nassi ak fiqul waaqi nu mu mën a boolee ñaar yooyu fexe ba xam li yàlla digale te xam ne dara jërut ci àdduna bu nit di bàyyi ndigalul yàlla mu fexe bañ jëfe ndigalul yàlla yi ci nam gën a rafete waaye sàmmonteeg aqi jaam yi loolu taxawaay bu ama am solo la waaye mboolem njaboot gépp fekk si ko ci jumaa yi Tuubaa yëpp di julli nam gën a rafete jàkka yi daara yi lépp di di jaamu yàlla nam gën a rafet waaye ànd koo def ko noo xamee ne nag danañ respecté noo xamee ne lor du ca am jàmm cay am loolu lu jar a jàng la waaye yëmu ci gis nañ euh, mu digle ci jamono jii nga xamee ne jafe-jafe dafa am nit ñi liggéeyatuñ nit ñaa ngi toog seen kër mu ne nañ jàppalante waaye du ay wax yu mu wax rek bàyyi da ciy jiitu moom jël alalam joxe jël lu ëpp ay millions ñaar ñaar téeméeri million jox ko nguur gi nga xamee ne kon moom njabootiwul rek murid taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye ummal mi bépp la njaboote kon fii loxoom àgg ci Sénégal ñëpp war jariñam war na faa fekk loolu responsabilité bu rëy rëy la euh, ñi nga xam ne njaboote njaboote na leen te nekk bitim réew it mu dëlal leen defal leen loolu lu ama am solo la ndax ku xam jafe-jafe yi ak biti ni mu ni muy méttee sëb sëriñ yëg la balay ñaanal di dalal sam xel loolu te nit tawat wax nañ ne daanaka li ëpp ci tawat tiitaange la xel mu dal rek mën naa mën na mën na mën naa faj faj nit tawat bu la dalagul ba sam xel dalee sax tawat ji mën na la bana dal ngir sa défense day day gën a dëgër waaye mu wanee ne tamit ku ci euh, yàlla moom it baye boo nga sedd sa xol te xam ne dangay doon shahid loolu it lu rëy rëy rëy la lu dalal xel nit ñi la yëmu ci it jël alal ju bari ay dund gis nañ ko ci tele yi di ko wane ñu koy séddale ci dëkk bi di ko séddale néew gi doole yi di ko séddale ci sancaan yi yëmut ci loolu mu digalaat jullit yëpp digalaat taalibe yëpp digalaat borom alal yëpp ne leen waxtu wii mooy waxtu jàppalante ku ko daawu def sax fexeel poso feeñ na gaawal ña nga jàppale leen ko kon loolu dëgg dëgg responsabilité feeñal na ko foofu euh, bokk na ci taxawaay yooyu mu taxawee mooy dégg nañ mu digal sëñ Mamor mu sëñ Fallou mu waxaat gan euh, ci daara yi alxuraan yi nga xamee ne bu dee daara yu daan fay la ña daan fay yoratuñ na ñëpp jàppale daara yi loolu taxawaay bu ama am solo la yëmu ci it mu génne alalam def ko ca kon taxawaay yu baree bari la yoo xamee ne taxawee na ko ci xew-xew bi euh, euh, ci wàllug joxe alalam ci wàllug delloo nit ñi ci yàlla ci wàllug jël ay matuwaay yuy tax euh, ñu mën a dund suñu diine ca nam gën a sellee waaye luy tax fan luy fang mbas mi luy tax ñu am jàmm luy tax wér gu gi mën a am benn buñ ci taxaw rek warees na caa man a jànge lu baree baree bari kon dëgg-dëgg euh, di ko ñaanal yàlla mu dëgëral ko yàggal ko fi te euh, dë baril dëgëral ko bu wér wér ndax wane na aw yoon woo xam ne ku ci jaar sa diine dana jog da da dana ñoŋ waaye euh, sa adduna dana jag te jafe-jafe yii ñuy nekk yëpp incha allah. bu ñu tënkoo ci lim ñu digal incha allahu taala yàlla dina ko fi jële ñoo ngi ñaan nag ci barke bu weer wu tedd wi ci barkeem moom ci barkeem maamam ju tedd ji mu ñaan yàlla yàlla jële fi mbas mi te bu mu fi ñëwati mukk yàlla sàmm jullit yi sàmm Sénégal sàmm jullit yëpp sàmm adduna bépp jële fi jafe-jafe yëpp bañ mën a dund sunu diine dund sunu adduna ca na gën a neex yàlla xam ibtilaaat yi li tax yàlla wàcce ko ci ñun muy ñu delluwaat ci yàlla topp ko ca nam gën a rafete ba mën a am ngërëmam tey ak ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. akamta yaa akamul baaxi bi kawn yaa saa fawsi bi ma qaaba min busraaka yaa allah